jërëjëf bokk internet yu dakaar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen ñuy toppee ci lépp li actualité rek di nuy ñëpp ñu nuy bàyyi xel di nuyu ñu ne ci réew mi di nuyu itam ñu ne bitim réew tàmbalee ko ñi nga xam ñoom ñu jàppale ci social bi dakaar Buzz social en tax ñu wéradi ñoom sëñ Jili Ndiaye sëñ Mamour sëñ Xaadim Sarr soxna su ngoom borom daaru bàyyi Saliou Baye Ateex di nuyu madame Coulibaly taa mooy mun a soxna Awa Top Ndeye Absalo suma rakk Mouhamed Amar girif sugu xaadim bari nañ di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm soxna faatu di nuyu ki nga xam ne mooy Nogoy bu Belgique di ñaanal ñëpp jàmm bonne volonté yëpp di nuyu di nuyu waa Italie tam ñëpp di nuyu suma rakk Fallou borom Napoli dafa Coro di ñaanal ñëpp jàmm tey nag Seydou ñu ñëw ci beneen cas boo xam ne lu doy waar la loo xam ne mais sant yàlla ndax yàlla moom mooy teg jaam nattu te. yàlla bu la tegee nattu nga dem ba xam ne lii dal na sa kaw nga am grande grandeuse wëlbatiku ne lii ma nekk du nekkul yoon bu baax dama ci génn pour nekk ci yoon bi nga xam ne moom la yàlla gërëm te mënuma koo jooytoo fenn furul ci Dakar Buzz susu ci Fadel kon moo la wan ne Dakar Buzz liggéey bu muy def mi ngi remarquable ñu ciy sant yàlla nag ndax gis nañ ni ngeen ni soutenir ci liggéey bi ba doolee Dakar Buzz yëpp mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy bon internet yi nga xam ne ñoo ñuy suivre di ñaanal ñëpp jàmm moom nag mi ngi dund lu metti xale la situation jàpp ko yaayam bu yàlwaaniwul jox leen ñoom duñu mën a lekk papaam nekk handicapé mu obligé dëkk ak yaayam mais dëkk ak papaam situation jàpp ko ak xelu xale ak ñànk encadrement ak ñànk ko waxtaanal ak ñàkk moyen ba tax mu jël yoon boo xam ni jàpp na ni baaxul muy yoon boo xam dafay génn guddi bi mu toogee nag waxtaan ak xelam ñu ne ko xelam yedd ko ne ko jamal ci Fadel bu ngeen waxtaanee du ñàkk bu ngeen bu la conseillé solution dina mu gindi la nga génn ci loolu ndax loolu baaxul mais laata loolu moom moo njëkk a jël ay propre engagement am ni dafa bëgg génn ci loolu parce que li ko sonal mooy bu weddee yaa am du am lu mu lekk du am lu mu naan du am lu mu fay location muy lu metti bi nag du appartement du kër néeg la li ma naan lu la yomb am na ko mu jafe comme xale la seytaane man ko ba mu jël yoon boo xam ne baaxul tey ñu war a partager moom ngir mu génn ci yoon boobu waaye bu ci génnee ci lan lay mën a jàpp lu dëgër loo xam ne dina ko mën a dimbalee way juróom liggéey la bëgg ak ku ko mën a encadrer rek teg ko ci yoon jàppale ko ngir lu mu mën a jàppale ay way juróom donte loolu du lay ndax liggéeyu ma rek dama war a jël yoon boobu du lay mais jigéen matul kon nañ ko jege noonu jàppale ko nag solution lay wut ku ko mën a dimbali te yàlla tax nuyu naa tonton Fadel fay naa la. waaw ah, yaa ngi ci jàmm. baax. jarul ma lay laaj ci tur ban situation ngay dund ba tax nga ne da ko bëgg a bàyyi ndax xam nga ni yoon boobu baaxul ndax ay dafa bari ay risques lan ngay dund. tonton Fadel man ñun bañ juddoo ba tey si métti àdduna rek la ñuy dund sam papa da doon liggéey caaroñ dem ba tànk yi yàqu boobu ñu ngi gën a nekk xale bu ko defee guddi dañuy jox ndox ñu lekk tëdd may gis situation boobu sama yaay di souffrir duñu togg dem kër jàmbur ñu ñuy ñuy dund lu metti ma dem ba àndandoo dugal ma si yoon boobu may génn guddi waaye dama dafa nekk góom bu metti sama biir xol mu nekk lu ma metti su ma sañoon nag ñu jàppale ma ma ut lu may liggéey may liggéey. d'accord génn guddi bi kañ nga ko tàmbali. ba ma ko commencé yàgg na tuuti. lan moo la poussé ak ban situation nga toll ba tax nga bëgg ne nga tàmbali woon di génn guddi. waaw parce que situation metti na trop sama yaay fu mu sa dëkk dañ dañuy génnee léegi bu ko defee fu ñu génnewee nii après ma ne ah man de lii du solution comme chaque jour sama yaay fu mu dëkk du am ba lu ñu lekk sax duñ ko am léegi après si laa xamanteeg ay samay copines si laa commencé di ànd ak ñoom di dem si baar yi léegi su ko defee li may am nii may ñëw di joxe dépense di si fay luwaas te situation rek moomu si dugal. d'accord sa yaay euh, amul yeneen doom yu bokkul sama yaay am na yeneen doom waaye ñooñu ay xale ndaw lañ mën laguñ seen bopp. yow yaay sa taaw yaay ko. déedéet am naa ñaari mag yi jigéen waaye ñoom am nañ jëkkër mais seen situation sëy taxu koo demee noonu même ñoom sa des fois kër ga la ñuy ñëw si man di ma ñaan. d'accord euh, kon yow euh, liñ la yan moom nga àttanul ba tax nga commencé di génn guddi. waaw liñ ma moom laa àttanul moo tax may génn guddi. wala li nga yanu moom nga àttanul ba tax nga commencé di génn. waaw li ma yan waaw moom laa àttanul. na sa weer damay fayal sama yaay néeg maa joxe dépense. néeg bi ñaata la. néeg sama néeg vingt cinq mille la sama néegu yaay vingt cinq mille la. d'accord ci sa biir famille yaay amu ci kenn koo xam ne rek mën naa dimbali sa yaay fayal ko néeg bi juróomi junni te yàlla tax sans tax yow ngay génn. si kaw sama famille yaay ñëpp bàyyi sama yaay ndax man parce que man dama amoon benn natt na dafa am ku ma nekkaloon bi ma nekkee moom après ñuy ànd maam moom benn jour mu ne ma dag yow da nga bëri ay catal jigéen dama lay yóbbu mbuur léegi bi ma yóbbee bi ñu demee ndekete moom demul mbuur passé na mbuur ñu dem ñu am problème ñu téye ma fa at bañ ma fa téye at suñu famille ay xalpulaar lañ ñëpp ñu ne sama yaay comme man damaa bon après si lañ ma bàyyi man ak sama yaay ñëpp kenn jàppalewul sama ñëpp a seetaan sama yaay. nekk bi nga nekkoon ak waa ji ban façon nekkin la woon. dañ doon ànd maa moom di génn ñuy nekk bu ñëwee seet si ma des fois ma dem néegam seet si ko. mais jour bu ma demee néegam seeti ko si la ma yóbbu ma am problème si yoon bi. ndax mën naa xam problème bi problème lan la ba tax ñu téye woon la ci yow at. problème mu la woon yàmba moom da koy jaay mais man bi ñuy dem man xaw ma si dara après si lañ ñu jàppee bi ñu jàppee nag tëj ma si at ak weer. fan la la tëjoon. kees lañ ma tëjoon dixième. tëj bi la tëj at nga yoroon kër gi daan génn guddi pour mën a jox sa papa sa yaay pour ñu lekk sa yaay nan la doon dundee ci Idira nga naa yooyu. sama yaay après Dakar la doon dem di yalwaan parce que moom Dakar lay nekk moom Dakar lay nekk mën naa la yóbbu ba fu muy nekk nga gis ko waaw mu nekk situation bu metti torop torop torop torop metti na torop. ndax li nga doon indi di ko jox sa yaay sa yaay xam na fi nga ko doon jëlee. sama yaay déedéet mais am na benn jour am ku ñëw si moom ne ko sa doom bi si baari lay nekk. mais sama yaay man dama yàgg sonn ndax sama yaay dama yàgg di liggéey di dem sedef si di yenu ay mat boobu ñu ngi dëkk gunaas parce que ñun gunaas lañ juddoo ma yenu ay mat di ko indil di liggéey min daan weer bu deewee damay xañ sama bopp sax ma jox sama yaay ana lu tax nga bàyyi loolu loolu pour mën gën ta sedd te barke ci nga dem guddi di jaay sa bopp pour mën a jox sa yaay waaw ma ëpp barke waaye damaa dem ba mel ni dama mel dañ maa tàggat tëddaleeg liggéey aussi man tamit wéru ma damaa am kist kist laa am ma des fois damay jékki-jékki feebar ba nii sax damaa xaw a feebar waa ñaataat nga am. ma am naa vingt cinq ans. vingt cinq ans ci xale bu ndaw nga bëgg a dund loolu est-ce que wóor na ci yow ak jamono bi ni mu yàqu. wóoru si man parce que dafa metti dafa metti trop parce ñeen ni ñi sax samay morom ñi ma si bokk nekkal ñoom bu ñu la waxee seen situation yow da ngay fàtte sa bopp metti na trop waa ku sañoon heure bu sañoon guddi bu jotee dina la fekk sa wetu wala mu fekk fekk la sa. wetu borom kër. d'accord ci temps bi nga toog di génn guddi lan nga ci gé dund ci génn guddi gi ndax dafa lan nga ci dund loo xam tey xam nga ni lii tey euh, def naa ko mais tey ci ay risques laa ko defee lan nga ci dund. bari na. lan nga ci dund moom ban nga ma ciy indil tey loo ci dund loo xam ni rek génn bi nga ciy génn guddi arrivé na la ci nga xam ne lii naa ko bàyyi balaa leneen di ma ci fekk. dama mës a waxanteeg benn waay. léegi ne ma nañ dem sama kër. ma dem këram bi ma demee këram ma fa fekk yeneen xale góor. mais jour dañ ma génneel paaka agressé ma jàmm mu ngi nii jëm jëm baa ngi nii. lu tax ñu parce que dama ñëw xale bu góor bi dañoo waxaale woon ma ne ko fay ma sama xaalis mu ne duma la fay ñeneen ñi si la ñu yeewoo après ñu tëddee ma foofu nangu sama téléphone jàmm. kon dund nga loolu ci milieu bi. dund naa lu gën a metti lool tamit ndax tëdd naa si kaso kaso bu ma bett dund naa si façon problème bu ne gàllankoor. mais man après su ma demee ba wéet man kese day mel ni feebaru xol si man day metti si man parce que su ma sañoon tey lii duma ko def mais ñàkk ak situation metti moo tax sax ma koy def parce que man damay toog ma ne man su ma demee dem ma jël alalu jàmbur ma dem génn sax ma amal sama bopp moom ma gënal ma jël alalu jàmbur waaye nekkul lu ma neex metti na ma trop ba si kanamu yàlla te ku ma si dimbali dootuma jëlaat yoon boobu. nan nga koy dundee ci sa biir famille nit ñi bàyyi sa yaay ndax sa jëmm nit ñi ñëpp abandonné sa yaay yow noo koy dundee yow en tant que jigéen. metti aw ma kuy wax ak man aw ma ku may conseil ñëpp kenn considéré ma kenn jàppee ma nit parce que li may def moo tax kenn jàppee ma nit ñëpp dañ ma bàyyi ak sama yaay. mais li nga nekk daal yoon boobu nga bëgg a jël décision bàyyi ko définitivement. waaw yoon boobu laa bëgg a jël bàyyi ko waaw. mbaa nit ñi buñ la jàppalee sa xel du toog ba càgg demaat ci yoon boobu. barki Seydina Mohamed buñ ma jàppalee du ma du ma jëlaat yoon boobu te tamit fa Fadel mën naa ñaan leen maa ñaan si bon volonté ku si mel ni Waly Soxna dara ak Youssou nduur ñu jàppale ma te yàlla tax ñu jàppale ma te yàlla tax waaw su ma amee fu ma dugal sama yaay même su dee pàq la sax may liggéey yàlla xam na ni yoon bi duma ko jël parce que amul mucc soo si jëlewul dof dinga si jëlee dee wala nga jëlee si feebar wala nga jëlee si ay natt yoo xam ne doo xam foo koy wax jee si àdduna te ku si nekk ñaan nga yàlla am mucc bu rafet muy àdduna muy alaxira man daal maa ngi jaan ñu jàppale ma te yàlla tax bu baax a baax a baax. d'accord mais sa yaay dem na ba xam ni kon yow da ngay guddi. sama yaay dem na ba xam ko xam na damay génn guddi mais sama papa xamu ko mu nekk situation metti waaye nu may def mënu ma jël alalu jàmbur mënu ma def dara loolu léegi ma si poussé. sa papa nga ne nga handicapé la ak fi mu toog mënu faa jóg. sa fi mu tëdd mënu fa jóg handicapé la da liggéey caaram di jaay mais dafa dem ba après tànk yi ñoo tax mënatul dara fu muy tëdd rek lay tëdd. ndax ñëw bii nga ñëw fii ci Fadel tey waxtaan nga ci ak say parents yëg nañ ko. waxtaan naa si ak samay parents ñoom ñoo ma gën a poussé sax ne ma demal. ñoom pare nañ tey pour bu ma bu fekkee may nga ma ko bis ñëw ma ànd ak yow ñu dem waxtaan ak ñoom seen situation. amul benn problème heure boo paree ñu dem. kon tey jël na ni ki nga xam ne moom mooy xale bi du tee nag dinaa xool benn jour boo xam ne damay dem jëli ko moom pour ñu waxtaan ak ay parents parce que tam nit bu nekkee situation doo ko beddi doo ko sànni doo ko wan ginnaaw danga koy taxaw te moom lii mu ñëw toog di ko wax ak man bari na centaine de personnes yu koy dund yoo xam ne mënuñoo toog pour waxtaan ko ak kenn bari na ci. ndax léeg-léeg nit ñëw ne ma dama laa soxla ñëw ñu yéeg ci kaw mu toog waxtaan mu wax ba jooy expliqué ma situation am na ci ñoo xam ne nag mën naa ne sàggante la ñoo ñoo tax ñu koy def mais am na ci ñoo xam ne situation ak ñànk encadrement ak ñàkk leen waxtaan ak ñàkk leen delloo si dana tax ñu jël yoon boobu kon nit nu mën a mel nañ koy xajoo nit ñu mën a mel nañ koy boole ci société bi di ko dimbali digaluma kenn tam bu la situation jàppee rek nga ne da ngaa war a dem defi loolu déedéet digaluma ko kenn ndax c'est pas forcé nga defoo mbindaanoo ngi fi jaay promotion ngi fi mais bu fekkee amoo ku mature ku mën a waxtaane yow pour lu këf sa xel yóbbu ko de yomb tëdd na ci atu kaso génn moom moo jël décision boppam ñëw nii da ko bëgg a bàyyi kon du doon ko poussé parce que xawuma ko mais woo na ma te bi mu ma woowee doomu aadama la doomu aadama nag moment yi mu la soxlaa ko ko si ko ko jàppale ñun du ndaw kenn du nu boddi kenn ku ñëw nangul ñu expliquer sa situation dinañ la jàppale ci sunu kàddu dinañ la jàppale ci sunu image lu waaye mën nga dimbali ko ju taar la loxo rek di ñaan ndax Dakar ba lu muy liggéey day nekk bu sell bu leer numéro moom dana ko def ci écran bi ku ko waaye mën a dimbalee nga jàppale ko waxuma nag ku koy jël di ko kekkoon mbaa di ko ñàkk fayda ku ko bëgg jël pour même lu mu liggéey parce que liggéey bi nay façon dama xamul mbindaar nga bëgg wala lan parce que ban façon nga bëgg. man su ma amee lu may jaay baax na. su ma amee lu may jaay comme ni genre cosmétique sax moo ko amoon bu ndaw ma siy jaay si daan sama doole ba boobaa dinaa mën a jox sama yaay xaalis bu lew. mais tey boo amoon ku la financé nga dem syndicat jënd say ab mangoog say affaire di ko togg sa màdd di ko jaay yooyu baax na parce que tëb tëb am fond bu dëgër pour commerce dafay xaw a métti. xeebu ma benn liggéey lu ma waaye dimbalee rek pare naa pour liggéey. boo amoon tey benn fond bu tuuti boo xam di nga mën a dem syndicat jënd say peretu mango peretu màdd jënd say màdd togg ko teg sa attaaya say café Touba di jaay même boo dee def bëccëg téeméer wala bëccëg 1000 francs sax bu yàggee sa fin du mois dina mat dara nga mën koo fayal sa yaay. loolu mën naa nekk. waaw loolu mën na nekk. parce que pour nga gis tam euh, ku mën a développer yenn somme mën naa am mais yombul pour jox la ko ne la demal nga liggéey. parce que am na ñoo xam tam ñu ngi def ngir yàlla mën na nañu ko mais daal sa décision bopp mooy nga bàyyi yoon bi loolu nga bëgg. waaw. parce que yoon bi wóorul li ci ne ci ay risques mën nga ci jëlee feebar mën nga ci dox mën nga ci dee. waaw lu nekk ngi si kay moom lu nekk a ngi si waaw fan yee rek Pikine la ñu rey benn xale bu jigéen. xale bu jigéen ba su ban façon lañ ko reyee. dafa waxaale waa ji ba ànd ak moom ñu yóbbu ko foofu rey ko. waaw kon liggéey bi ngeen nekk xam ngeen ay risques la. risques yu bëree si nekk risques yu bëri. lan ngay wax ñi nga xam tam ñi ngi tàmbale pour teg seen tànk ci yoon boobu duggaguñ ci yow mi nga xam ne def nga ci cinq ans ñu xam ni lii tam nekkul yoon bu baax nekkul yoon bu am avenir nga teel leen alerté loo leen di wax. ah su ma sañoon moom duñ si dugg parce que yoon bi dafa metti parce que des fois nga ànd ak góor mu fay la jaay doole nangu sa xaalis des fois nga ànd ak góor wax sax mu ne dama laa fay waaw te amul mucc coono kese si nekk ndax guddi ñëpp bu ñuy nelaw yow doo nelaw te des fois da ngay perte guddi da ngay génn doo am dara. noonu ngay ñibbe wala ngay ut sa benn xarit boo xam ne dalay leer ni kii yor na bu jëlee oto mu wàccee waale la yoon bi daal amul benn mucc maa ngi ñaan na morom jigéen ak xale yu ndaw yi surtout yu ndaw yi am ay 15 ans 16 su ma sañoon bu leen jël yoon bi ngeen ut loo leen liggéey parce que yoon bi ay jafe-jafe ak ay métti dongo si nekk. yoon bi ay jafe-jafe ak ay métti ñoo ci nekk Seydou fii laa wàcce sama kàddu ku ko bëgg a jàppale itam numéro mi ngi ci baar écran bi man na damay ñaan rek. ko ko mën a dimbali loo ko mën a jàppalee mu dem syndicat jënd mango wala màdd defar ataayaam jaay ko bari la barkeel ko gën mais li ma lay soññ man tam mooy que nit ñi buñ la jàppale nga jël ko def ko ci sa bopp nekkaat ci yoon boobu parce que nit ñi buñ la xasee dimbali benn yoon jeex na naam ñaari junni sax boo ko amee mën nga cee départ dem syndicat jënd sa mango jënd sa màdd togg màdd bi jaay ko am ci dara moo gën lii nga nekkee parce lii nga nekkee bu ndaw mais li may bañ mooy nu jàppale la nga solo ko mbaa nga lekk ko mbaa nga naan ko nekkaat yoon. déedéet tonton Fadel yàlla tere du def loolu suñ ma jàppale woon tey dinaa wut lu ma jaay tabaski bi mu ngi nii di ñëw sama yaay tabaski bu amee duñ am lu ñu jëndee xar day dem jël si woom yalwaan pour mun a am lu ñu toggalee tey su ma ko amoon li ma bàyyi sama ginnaaw samay famille sama yaay samay rak xam naa ko dinaa tal leneen lu dul noos te billaahi wallaahi bi su ma amee ma si yoon boobu dootu ma ko jëlati mukk mukk kon dinaa def la tuub baa ngi tàllal loxo nag jaamu yàlla yi képp kuy def te yàlla tax kuy def te yàlla tax na ko dimbali jàppaleel ma ko ci somme bi nu mu mën a toll mu dem syndicat Dakar ba li ma leen dafay topp ci liggéey bu leer tey buñ ko jàppale woon ba mu yam benn fond bi bu mën a dem syndicat jënd dara pour liggéey duma ko bàyyi dinaa ko topp xool ndax liggéeykat la dinaa ko topp xool ndax yoon bi mu nekk moom moo jël décision bàyyi ko wala dafa ñëw pour lijjanti boppam lu ci mënti am dinaa ko xam dinaa ko xam kon ku ci def def ci sa yàlla tax te xam ne ku ci dugal sa xaalis du nax saay man su ma demee ba xam ni kii liggéeykat la mérito nañu jàppale ko dina ma jaral ma alerte waxaat pour ne leen nañ ko jàppale ci yeneen i fonds su ma demee ba gis ni nag moom du liggéeykat dafa dem ba ne ci ay problème ñëw Dakar ba pour ñu dimbali ko pour mu lijjanti boppam man maay toogaat fii devant l'écran ni leen kooku ngeen doon dimbali arrêté leen ko du kun war a dimbali du war a jàppale ndax kun xam-xam ci dëgg mais daal tàllal naa leen ci loxo te xam ne lu ci waaye def yàlla gis na te yàlla mooy fay lii moo nekkoon li ñu leen jël si loon tey fii jarul ñuy wax turam jarul ñuy wax adresse am mais man ku ko caa bëgg am lu leer woo ma boo ma wooyee lu ci war a leeral dina la ko leeralal ñu jàppale ko te yàlla tax nan def ñu mënoon ci baar écran bi ngir mu génn ci lii ndax moom moo sàkku ne daa war a génn ci lii nit nag bu demee ba dugg ci yoon xam ne da cee war a génn yàlla na ko ci yàlla defal jàmm lan ngay tàggatoo. damay tàggatoo mooy autorité yi ñu jàppale ma s mel ni Waly Sohna Aidara président bi tamit mu nemmeeku ñu utal xale jigéen ay liggéey ñu liggéey parce que tamit dëkk bi dafa metti waaw man moom incha allah bis bu ma yàlla dimbalee bañ dimbali ma tonton Fadel dinaa di nga nekk sama kilifa nekk sama lépp ndax yoon boobu bëgg naa ko bàyyi. bis boo yoon bi dinaa la taxaw comme ku ma bokkal ndey ak bàyyi dinaa def ngay suma rak def la ngay sama jarbaat mën nañ dem ba nga am borom kër bu bu nu la mayee ñu xam ni ki nekkoon ci yoon bi génn na ko nit takk na ko lépp mi ngi ci yow. waaw tonton Fadel man kay moom incha allah barke Seydina Mohamed buñ ma dimbalee. lu bon dootuma si nekk te lépp maa ngi sa ginnaaw ndax ba ma la woowee ñàkkaloo ma kersa toroxaloo ma dangaa sonn ci samay problème waaw. kon jërëjëf ñu wàcc sunu kàddu foofu dinañ def nii mu leen ci bari écran bi ci micro bi Fadel bi ngeen tàmm gis la cadre bu Seydou laa ci àndal jërë ngeen jëf ba ci yeneen jamono dinaa ko topp.